commerce ngi ni teg rek la def teg bene ngay gis ne amadou ba moo fa nekkoon mi ngi amadou ba fa ñuy taf eh, jomaay di profito góor gi xam nga lu la xamal karo yi waaw chambre commerce bu dakar mi ngi nii chambre commerce ngi nii teg rek la def teg bene bari adna adna adna barke salim mbàkke waa ji yor fetal gi ma gisee tudd ma sànni sama appareil Ndiaye Touba ak ni buntu pale sa waay di tourné sama yoon nekku ci Macky dem na. Amadou Ba looy def fii Amadou Ba ay mbir la demal. Ndiaye Touba pale direct en face pale. Jamaah, ga yijis ne ah sore ga sa sana nan ja ta kana ay sa al wala nyaala diga ka est ce que mahal kuah. Perbedaan dam ay mahal nyaga nyaaw mahal nyaga nyaaw mo di basir buntu fale ja tuma musuma ñu fale barka sari zare mbake non Macky Sall ma bu aye non première dame li may xeeñ ñi moom première dame ko togg no ya da ya, da lai da lai news lai da lai news ah, ah, yo pare gi oh ah, ndaysan ndaysan jaay tuba ñew na buntu pare way bari na dewen man naam ngir watel mamadou ni ndaysan day dono anti ci pare musuma fe jaar ndax Macky Sall bañ Macky Sall rek pare bi lank bañ ci sama walde. de jaay tuba sama babi bi fe la koy tek eh képp ku ma gis nga dugg te da waro fe dugg ma la maafe mi ci bi. ay maafe mi xeeñ ah, ko togg ay eh, maafe mi ko togg mi xeeñ gaa yor fetal yi taxaw ñu ay waay yéen wàcc leen seen fetal yi ngir ay buntu pale yi bi ko man maanaam mi ngi raf pale boppam ñawaay góor ko bu baax Basiiroo fi ne de. waaw rafetal googu mën a sàmmal Basiiru bu baax. <laughs> sa sàmmal nu ko de. Sonko ngi borom borom réew mi fii la nekk ndeysaan xoolal fii la Sonko nekk ndeysaan. di leen ko nettoyé di leen ko nettoyé di leen ko nettoyé. <laughs> gars yi dem nañ palais siyaare jaar permi la. waaw garde yi nag leen dénk naa leen jomaay yéen ñi yor yi da leen soxandoo par bal. tey <laughs> armé wu fu ñu leen attention attention tuy waaw bu leen maye dara waaw gars yi bari na ndeysaan bari na àddina àddina àddina tërëdi